billahi min asheytaani rajiimi wa inni uhiisuha bika wa surriyataha min asheytaani rajiimi rabbi aaudu bika min amasaati sayaatiini wa aaudu bika rabbi an yaxduruun bismillahi arrahmaani rahiim barke borom Daaru Muxti mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di ziyaara di jiital ci nuyoo ziyaara bi ki fi toog toogaay ku tedd ki Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba di sëriñ Muntaxa Bachir ñuy ñaan suñu woroom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootuk sëriñ Touba gépp di nuyu ak a ziyaara ki toog toogaayu borom Darou Mouhty mii sunu bunt ci sëriñ Touba muy sëriñ Basiru Anta Ñang di ñaan woroom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu borom Darou Mouhty gépp nuyoo boobu nag dañ koy teg ci loxol sëriñ am Amsatu Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke di ziyaare bokk yépp man samay wax du ci bari li may wax mooy murid yi ab communauté la ñu mbooloo lañu ay millions lañu kenn nit jóg dévier leen tooñ leen loolu yi nag man moom laa bëgg mu saafarawu te yàgg naa koo xeex su fekkente ni Omar Diagne dafa ëpp doole yoonu murid dana nu ko xam man daal lenn rek laa bëgg mooy la muy yoon li nga xamante ni moom lay teg ku tooñ mu teg ko Omar Diagne ndax ba ma juddoo ba tey mag ñi ma mag maa ngi doog a génn dégg ku taxaw ni sëriñ Touba nekkul ci sama xol Serigne Touba bu nekkul ci sa xol war nga ko mën a nëbb mag ñi ma mag noo ngi doog a dégg ba yoonu murid sosoo ba léegi ku taxaw wax ni Serigne Touba li mu bind c'est pas parfait matut dañ ko war a defaraat loolu maa ngi koy doog a dégg ma bëgg nag nun murit yi nu taxaw ndax li tubaab yi di wax ni l'impossible n'est pas murit murit yi tëlewuñu dara la preuve en est gis ngeen li ma jàkkaarloo ci ay caméra sëriñ am satu ñeent fukki at ci gannaaw xatol nañu yoonu murit ci média yi ba sa waajur Cheikh Abdoul Ahad Mbacké na ko sunu borom fayal wax wax jam waxoon waaye tey gis ngeen les caméras te lépp ay murit a ko moom may sàkku nag ñu takku mbooloo moo xamante ni bii dana nu aar yoon wi dana nu aar dëkk bi dana nu aar njabootu Serigne Touba gi ndax li ma wax ci média yi murit yi tëlewuñu dara dinaa ci joxe benn misaal muy jumaay Touba ji jumaay Touba bi ñu koy tabax Touba amul forage amul ndox fan lañu doon jëlee ndox mi ñu ko doon tabaxee Cheikh Mahamadul Moustapha yàlla na ko sunu borom fayal moo wutoon ay mbandi simon yu mag bu nawet jotee fu ab déeg taa ci Sénégal murit yi dem wut ay ndab dem root ko ñëw sotti ko ci mband yi bu nooree moom la ñu daan tabaxee am na benn journaliste màggalu Tuubaa 1956 reportage bi mu doon def en français bi bi mu jeexalee ma ngay wax ni du ma génn Tuubaa mukk te rendre ma hommage delloowuma njukkal les 60 000 murit booba nee nañu 1956 murit yi 60 000 la ñu woon mu ni ñoom day danaan leen rendre hommage ndax seen tabax gi ñuy tabax pyramide ya nekk Égypte lañ ko mën a méngaleel ak cathédrale yi nekk Occident mu ni moon a murit yi day domteeguñu la nature amuñu ay groupe amuñu ay lenge amuñu ay bur ay ay ay ay li jaxase ciment lu ñu ko waxee ci euh, li ñu def lépp seeni loxo lañ ko defee te loolu c'était en 1956 sept ans après la sëñ Fallou doogale eggale jumaa ji kon li may sàkk mooy Omar Diagne mii daal na yoon jóg def li war su fekkente ni def loo ëpp doole nag nu xam te loolu sax mënut a nekk yoonu murit dara ëpp ko doole di sant njabootu Serigne Touba gi nga xamante ni teew nañu ngir lii nga xamante ni yëkkati nañ ko jëme ko ci seen maam am na murid yooyu nag sëñ Touba desu ko xulool man damay xulool Serigne Touba damay xeexal Serigne Touba bu jaree joxe bakkan damay joxe sama bakkan ngir Serigne Touba bu ma tee naa dem sawar maa xam kon Serigne Touba kenn du ko xeexal giñ naa ci dara yi borom daara mootu Cheikh Abdoul Ahad bi muy nekk ci suuf ku taxawoon ni bindum sëñ Tuubaa mi baaxut dañ koy defar la mu waxoon ni murit buy dox kenn ku nekk sañ naa doon sab sëriñ waaye murit bu tëdd ci ak jaat kooka ni diwey sab sëriñ bu ma noonu jóg du fab aw yat joosi lay fab waaye wallahi alazim sëñ Abdullah tey bu fi newoon waa jëmee bañ a tudd aw turam taxaw ni bindum sëñ Tuubaa baaxut fu mu nekk dana ko fekk maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Mbaye Guèye Syll léegi liggéey yaa ko borom daal waaye ñuy xamal mbooloo mi talaata bu ñu jullee takkusaan ba noppi. moo ngi leen di nuyu di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha ko fi te wéral di nuyu njabootu Serigne Touba gi nekk ci jotaay bi di jël gi nekk yépp di sant yàlla xam naa kàddu yi lay digal. ci jëmm ji tax ñun ñëpp ñu daje ci te xam naa si dégg naa yenn mbokk yi wax ñu bañ a wax Cheikh Omar ndax mel na ni moom mënees na koy wooyee Ximaar Jaañ moo gën a jub ci mbiram sax ci di ko wooyee leneen dafa wax ne mbindum sëñ Tuubaa moom lépp wérul wala luñ war a seetaat la mu mel ni moom dafa mën a tege tuuma ginnaaw sëñ bi li bind dafa bari te fànn yi mu bind dafa bari la doon baax mooy nga teg sa baaraam ci ne fànn gi liñ ci bindee du noonu wala liñ ci waxee du noonu waaye day mel ni moom day junj rek ni ki mu waxee ni ci jumaa ji siiñ boobu fi nekk ginnaaw moom xàmmee na siiñ yi ndax mën naa nekk seen représentant du ñàkk mu xam na muy mel mu ne boo leen demee ca buntu penku ba sowu ba ba ci digg ba sëñ ba mel nangam ni suñu franc-maçon mi ngi ci jumaa ji mu leeral ko boobaaj bu dee laa biire la xam na ne Tuubaa moom léppam diine la euh, ba ca toppit mooy kuy jéeñ a sàcc ndax dëlëf dëlëf ji ci yoon wi ak nu ngoo joxe alal ji ñi koy joxe sax xamuñu ne ñoom yëguñu ne ñu ngi koy joxe kon bu mu jàpp ne lu jubut la ba tax sëñ Tuubaa la yàlla tàggatal xol yi bu laajee danañ joxe bu santaanee de sa jëf bu dee ci mbindum sëñ bi rek da koo jéggi Cheikh Ibrahima Diop almachan dafa waxoon ne ci sëñ Touba fa fi kulli baytin min nidaamika ibra biha yamurul aalifu mutabasit defe naa kii wax lii ci mbindam nag ida katabtu intazartu ba jalla wa xaaba kulla jaanillah ida katabtu farra iblisu bila tawajjuhun liye wa anni kubila ida katabtu aw qaratu xaada liyal badiu fadluhu fan qaada ida katabtu ittasama sujaau wantajahat li xasidi aw jaa bu njëkk wii yonent bee ko moom mooy bu ma bindee yonent bi day bëgg waaye képp ku iñaan nag aw méttite lay dar mooy onk ju Omar Diagne dëkke alaw jaabe muy Imaam Diagne ida katabtu aw xaratu farra iblis ma kullu shaqiyin garra koo xam ne boo bindee iblis danaan pëccët di daw ak kuréelam bi ida katabtu aw xaratu harwala ila siwaaye kulli man taqawwala kon koo xam ne mbindam kitaabati min lawhi rabbi tanqul laa yabtari fiiha nabilun yanqilu mu mel ni nag dafa am benn benn wata boo xam ne da daan wuti ñam bi waaye daa amul golo yeewu ko ci wata bi golo gi bu nit ñi dee tàccu naan golo golo golo yi sëq ñëmb ji di may nit ñi saa yu borom wata bi gaaree nag bu xoolee xam ne ñëmb ji manqué na mu perte mujj la mu ne naa ci defuk settantal mu fexe ba xool golo gi ci seetu bi seen ne nit ñi koy barawoo di ko tàccu moo tax gaynde di di di golo gi di publier ñambi ji di ko maye mu jàpp ko duma ko duma yu mettee metti yeewaat ko ca gannaaw mu bu dëkk bi nag ña doon tàccu di tàccuwaat di séentu golo sànni leen ñambi mu naan leen nii noppi leen ndax mi may séen ci kon golo gii rëcc ci kër gii di sànni ñambi yii tee ngeen ne yeew seen golo gi ndax bu yàqee ñambi yi yéen la yàqal seen ñambi te du ñeneen bay ñambi ñuy dunde ñambi kon na ngeen ci góorgóorlu bu baax sëñ Touba nag sëñ Ibrahima Diop ne na tabban li munkarihi tabban li xaasidihi tabban li a anada kenn du ko noonu am jàmm du sa jëmm a tax waaye ku amul lu mooy lenn ku ko laal gis leen waaye yow yàgg ngaa wax te kenn tontu la ba ngay wëri plateau di wut ko la xam ku ne nga jiñ ko franc-maçon akub sàcc ak góor jigéen sa yow mënu koo weesu jiw moom la képp ngay wax waaye amoo tegtal boo ca teg boobu jàpp ñu ne yow ku nu war a wuyu nga ndax ku bëgg la ba nga jàppee ne am nga place nag ba jàpp ne jekk nga boo tooñee ci lañ lay war a door a tontu nga wax Imaar Jaañ nga xam loolu xam ne ñun duñ dëpp duñ bàyyi duñ dellu ginnaaw sëriñ bi lañ am ñoñam lañ am danañ jébbu danañ joxe danañ gëm te duñ dëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala noo ngi siyaar seex am satu ngir mu joxal na ko seex Muntaqa man nag fi may waxee mooy fi jàmbaar yi bàyyee rek mooy Himar Diagne moomu noo koy wax ne ko dégg naa sax ñu naan na ko état dàq yooyu loolu nun suñu yoon nekku ci nañ ko def premier ministre ñoo xam mais na bàyyi sëñ Touba ku moom mayunu la ngay wax dara ci sëñ Touba ne ci réew mi di am jàmm loolu nag nun murit yi noo koy lijjanti li fekk àggunu ñun murit yi nu laal sëriñ Fàllu waa kër sëñ sa faa ñëpp jóg nu laal borom daaru waa kër maam Cheikh Anta ak sëñ Mandumbe jóg yëf yi nasoo gudd luy raam ci ñag bi la jëm nanu taxaw yoonu sëñ Tuubaa wii teg gore bi sunu bët naree xonq sëñ tubaa képp ko faj mel na moom rek la woon tubaab bi mënul ko dara tey lu bari nu gën noo mu murit boo wax day làqu rek ci néegam naan ba nu bàyyee duma lan lan lan lu tax muy bàyyi duma pourquoi loolu est ce dañ koy wax rek toog di ko wax ci ay télévision télé téléphone ajjuma wootewaat nañ Masalik dugal nañ recours ndax bii passé dañ koo yóbbu ñu ne perte nañ benn fan démb gis ngeen li jot a xew sëriñ si fii sañu ma sañu ma leen sax digal dama leen di ñaan ku ci ne am nga ay taalibe yu nekk ci dëkk bi na ñëpp mobiliser wu ni ñu defoon ci màggal gi dem Masalik taxaw fa régler lii mu jeex une bonne fois pour tout sëñ Bamba gaa yi yëpp sëñ Tuubaa yebuñu ma man yebuñu ma noo dëkk Ndakaaru yebuñu ñu pourquoi ñu yëpp sëñ bi état mooy lan ak pal mooy lan nanu taxaw yoonu sëñ Tuubaa wi mu jaral ñu bakkan ku nee ngi boo waxee naan damaa ko ma saaga nan mu saaga ngir sëñ